alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha xaqa tuqaati wala tamuutunna illa wa antum muslimun amma baad mbokk julit yi ñi ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala dafa yey ci ab jaam foo mën a toll ak noo mën a nekkee ngay sant sa boroom sax di ko wéetal waaye tamit baril di julli lool ci ci yàlla ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñim yónni woon ci ñun ngiree mu jàngal ñu nu ñuy jaamoo sunu boroom mbokk fan yii ñuy dund tey dangay gis ne lii di masjidul haram man ko jublu la nga xamee ni nii mooy jaami yàlla yi xatta sunu réew am na avion yu fi départ euh, démb ngiree jëm Makka lii di jumaa ju tedd ju màgg jooje doomu aadama yaa ngi jóge ci gox yu nekk daa jublu foofu ak seen kabbar ya ak seen wéetal yàlla ya ñoom ñépp ñu dëppoo ci di wax labbayk allahuma labbayk ey yàlla wuy si nañu la te ñi ngi sax ci di la wuy si labbayka la sharika laka yàlla wuy si nañu la amoo kenn ku ñu koo xam ne nii ku ñu lay bokkaaleel inna alhamda wa nicmata laka walmulk mboolem xéewal yi mboolem cant yi mboolem nguur gi yàlla yow rek yaa ko moom laa sharika lak ña ngay dem di wuy ji seen woote boroom ña ngay dem di wuy ji yégleeg noddug Ibrahima ga alayhi salaam xemmem lool tukki boobe sawar lool ca yegg ca bég lool ngir dajeeg lañ nar a dajeeg ca kaaba gaak yeneen yu dul yooyu loolee booleeg yaakaar yàlla bal leen seeni bakaar waaye it yàlla may leen loo xam ne dana leen ci tabbal aljanna ñuy joxe juróomeelu ponk ci ponk lislaam ci place bi gën a tedd ci suufas borom bi subhanahu wa taala place boobu nga xam ne mooy makka makka boobu sunu borom ne njëlbeenu néeg bi ñu sampal doomu aadama yi ci kaw suuf ngir ñu jàmmoo fa yàlla mooy ba nekk ca makka di lu yàlla subhanahu wa taala lool mandarga yu tedd nga fa muy nekk la nga xam ne mooy taxawaayu ibrahima ba sunu borom def ko jubluwaayu doomu aadama yi ba fii ngeen toog ni yéen ñépp yéen a ngi jublu makka moo ne waa japon ñi ngi jublu makka moo ne waa feneen nit ñi ngi jublu makka sunu borom yàlla nag nee na wareef la ci jaam yi ñoom ñépp ñu xam ne war nañu aju ji makka képp koo xam ne am na pexe ci loolu amma ki ka man ba pare lank ba ñu dem na xam ne sunu borom yàlla ku woomle la ci ay jaamam loolu moo tax ba nga yow julit sa programme àdduna na nga ci boole ci priorité yi mooy naka lay def ba dem makka nga la waay sunu jeune intellectuel yi moytu leen jublu ci lu bari ni ngeen di demee ay vacances ay Londres ay Amérique ay feneen ak feneen jënd ay oto yi vingt trente millions ngal waay loolu xam leen na la nekkoon farata ci yéen di priorité ci yéen ci tukki bi gën a neex ci tukki ñuy tukki ci kaw suuf mooy ngeen fexee dem Makka mbokk képp koo xamee ni nii nekk na ci ñun yàlla baaxe ko mu war a jóg bokk ca ña nga xam ne nay dem Makka ngalla waay na natt xéewal bi ko yàlla may yàlla may na ko xéewal gu rëy xéewal goo xamee ne nii lu bari ci jullit ñi tey ña ko ca ñee mbokk da ngay xool tey ana ñaata doomu aadama ñoo xam ne wallahi bu ñu sañoon tey di tàggoo yoonu makka waaye xu amuñu kattan alal bu ñu mën a joxe ba dem makka ana ñaata ñoo xam ne xëy na sax am nañu kattan ci alal waaye ñi ngi nekk ci feebar mënuñu dem makka ana ñaata ñoo xam ne ñi ngi nekk ci ay xat-xat yoo xam ne tënk na leen mënuñoo dem makka yow yàlla subhanahu wa taala teggi la lu lépp ba ngay nar a dem ngalla waay santal yàlla ci loolu bi nga xamee ne mujj naa dégg ñiy dem Sénégal ren matul onze millions matul onze mille ci ay ojaaj loolu même bu demoon ba nekk treize mille sax lan lay firi mooy junni bu nekk kenn moo cay dem makka waaye xataa yi de Màkka matul sax junni bu ne kenn kon bu la yàlla tànnee ngay kenn ci junni ay jaamam ngal la waay xoolal xéewal gu màgg googu nga daal ci sant yàlla sa boroom naka nga ciy sant yàlla mooy li jiitu na nga yóbbaloo ragal yàlla lan moo jiitu ci ragal yàlla mooy sellalal sa yéene boobee xamal ne ak màkka jaamu yàlla la sunu borom mu ne sant ma jaam yi lu dul ñu jaamu ma sellalal ma diine ji wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu din jublil sa tukki boobee ngalawaay la nga xam ne mooy jaamu sa boroom am ngërëmal yàlla sippi say bakkaar am payug ajjana xamal ne lii di sellal yéene loolu mooy baasu jëf jëf lu mu rafet rafet ci biti te la ko lal ci yéene sellul loolee da ngay gis ne baaxul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn aj la aj bi ko yàlla subhanahu wa taala yónnee ba muy jiite jullit ñi keroog ñu ëpp lim bu baree bari gis nañu ne taxaw na ca kaw gileemam nga daa di yóbbaloo yóbbal bu néew boo xam ne dañ naan jamono jooje lem tegoon ca kaw gileem nga matul sax ñeenti dërëm mu daa di ne allahuma xajja laa riyaa fiha wala sum'a ay yàlla maa ngi ñëw di aj si de aj goo xam ne ngistal amu ci déggtal amu ci loolu moo tax ba nga lawaay moytul seytaane yàqal la sa ak googee ngiree ñu lay woowee aja wala yaa ngi dem makka ngiree kat diw dem na diw dem na mañi il faut ma dem loolee mbokk yàquk seytaane la bépp jëf boo xam ne ngistal dugg na ci yàlla bëggu bëggatu ko kii di Sufyaan ibnu Uyayna nee na man day ànd naa ak Xasan ak ànd naa ak Ali bi nga xam ne mooy doomu Xasan di doomi Ali ibn Abi Talib nee na ñun ñépp ñu armal waaye moom bi mu armalee booba giléem yi la war nee na yéeg na taxaw ci kaw giléem gi ñu gis ko mu ne xaj yi rek taxaw di xool benn place ñu ne ko ah waaw doo armal mu ne dama ragal su ma nee labbayk allahuma labbayk ñu ne ma laa labbayk wala sadayk damaa ragal ne su ma nee yàlla maa ngi ñëw di agsi ñu ne yow de kenn wuyu siiwa la gis ngeen imam Ousmane bi fi doon jiite ajjuma ji passé jazahullahu xayran mi ngi leen doon wax ci képp ko xam ne yaa ngi dem di aji ji makka te la nga yóbbal doon yóbbal bu xaraam soo nee yàlla wuy si naa la malaaka yi ne la waaye yow de kenn wuyuwu la loolu nag bokk na ñaar yu koy waral mooy yiina bu sellul wala alal ju daganul ay yéen mbokk julit sunu borom yàlla ma ngay tagg jaamam yi nga xam ni lépp lu ñuy def dañ cee booleeg tiit mbaa lii yàlla nangu na koom déet walladina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusaari'uuna fi lxayrat wa hum laha saabiqun ñooñu nga xam ne nii ñoo mel noonu sunu borom nee na ñooy jëkkante jëm ci aw yiw looloo tax ba nga la waaye nañuy waat góorgóorlu yi sellal suñuy yéene suñu digganteeg suñu borom waaye yow mi nga xamee ne ni tey demoo makka nga la waay xamal ne dem makka du ne ay jëmm rek a mën dem makka waaye mbokk dem Makka demuk jëmm ak demuk demuk xol Ibrahima alayhi salaatu wa salaam bi muy ñaan yàlla njëriñu Makka daf na ko waj'al af'idatan min an-naasi tahwi ilayhim yàlla yàlla na nga def xolu nit ñi jàng jëm ci ñoom loolu lan lan lañ ca xamoon mooy du ne ñi bëgg a dem Makka ñëppay dem Makka kon yow war ngaa góorgóorlu yow it ak mu nekk nga fexe dem Makka ci la nga xam ne mooy sa xol. ba nga xamee ne bu dee ne sa yaram bi yeggul ca kaaba ga it sa xol bi moom yegg ca boroom kaaba ga ca borom kaaba gaa gën a màgg kaaba ga loolu moo tax ba da ngay gis ne jullit ñi dëgg-dëgg heure bu aj makka ñëwee seen xol ma ngay dem makka seen xalaat ma nga ca makka ñu mel nañu yàlla di nettali ca taw ba ndaw ñi ñëwoon ci yonent bi alayhi salaam ne ko ay yu mi yàlla yónni may ñu lu ñu war ba jihaati mu ne leen dëgg-dëgg aw mu la ma leen jox ñuy ñibbi seeni kër ànd ak seeni jooy eh, sunu borom mu ne ngir amuñu lu ñu dépensé loolee la shakka ne mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal nañu ci loolu yonent bi jóge ne Tabuk ca xare boobu yàlla di nettali bañ ca jógee mu ne sahaaba yi moo ne day am na ñu nekk Madina amul benn yool bu ñu dal suñu tukki bi lu dul ne yàlla bindal ne leen lu tol noonu sahaaba yi ne ko ah te ñoom ñu ngi Madina mu ne waaw ñu ngi Madina ndax ñoom xabasahumul uzru la tax ba toppuñu ñu mooy dañoo am ngant loolu moo tax yàlla fay na liñ leen fay loolu moo tax ba ngal way fexeel ba yow sab xol bokk ci la nga xamee ni dañuy ajj ji makka loolee lan moo la koy may li la koy may mooy nga xam ne suñu boroom yàlla jaamu yàlla yi muñ sant du ne la nga xam ne mooy jëf yi la ciy xool waaye lam ciy xool mooy yéene ya lam ciy xool mooy dogu ga amul lenn loo xam ne yàlla danañu ko farataal lu dul am na xikma bu nekk ci biir loolu sunu borom di def dara ci neen mën nga koo xam nag mi ngi mel na jàpp wala sangu ñépp xam nañ ne moom la chaque ne xikma bu nekk bu mag mi ngi ci mooy nga daal di set waaye même boo ko xamul sa boroom du la bàyyi di la sant xam ne xikma nekku ca ujaaj yi mbokk julit ña nga jëm jublu ca kaaba ga lan mooy kaaba moo ko kaaba ga mooy lii mandargal wiital yàlla ci kaw suuf doon loo xam ne day dajale jullit ñi ci benn jubluwaay wax naa ko sànq fi mu ne waa Sénégal da ngeen naan dangeen ngeen jublu penku mais waa Japon waa Indonésie ñoom bu ñuy julli sow la ñuy jublu lu waral loolu ndax ñun ñépp suñu jubluwaay mooy kaaba gi su ko defee kaaba googu ni état yépp amee ay drapo drapo yooyu di symboliser li ñuy tuddee unité peuple bi yépp am ay jubluwaay yu ca nekk noo ñett la kaaba gi nekk drapeau bi l'islam amma bu dee ne yàqkatu l'islam yi bon yi di xeex da ngay de dañuy dem ci ñi xamul dara naan leen jullit ñi kaaba gi lañuy jàmm mbokk abadan islam li mu gën a bañ mooy xërëm waaye kaaba googu ak xajurul aswad dafa nekk ay mandarga yoo xam ne day nekk luy symboliser booloo jullit ñi loole kon lañuy jëkk a dégg ci loolu amma bu ñu demee ba yenn place dana am place yoo xamee ni moom lañu ñu tudde miqaat yooyu mi jógee Sénégal jaar Madina yaa ngi koy defee fu ñu tuddee Zul Xulayfa soo fa yeggee loolu la ñu tudde miqaat miqaat boobu lu mu lay jàngal mooy sa dund gi am na fu mu yem de sa dund gi am na fu mu yem lu mu yàgg-yàgg léegi boo yegsee ci miqaat bi da gis ne mboolemi góor yu jóge Chine mboolemi góor yu jóge États-Unis mboolem góor yu jóge senegaal wala feneen ñoom ñépp dañuy summeeku daa di benn sir ak lu ñuy woddoo ca lu ñuy sànge seen yaram ca kaw loolu lépp lu mu lu ñuy jàngal mooy wane na ñunkat tey daje nañu ñoo ngi dellu di fàttali sunu bopp ndekete ñun kat benn lañu mooy chinois yi summi nañ seeni mbubb waaye général bi it summi na mbubbum généralam soldat bi summi ko tay chef directeur de service bi kii bale mbedd bi ñun ñépp ñu yem daa di làmbaayoo comme jullit ñi bu ñuy wuy ji seen borom ca bàmmeel ya président de la république niñ koy sangee moog ni ñuy sangee balekute mbedd bi ñoo yem ni ñuy sange général ak ni ñuy sange caporal ñoo yem loolu kon loolu lañuy ñuy boobu di jàngal ñu daal di jublu ci sunu borom mu ñuy jàngal ne dunduk àdduna gi lu ñàkk solo la bis dana mës a ñëw ñu won ko gannaaw lan la ñuy yóbbaale du ñu yóbbaale lu dul ñaari morso loolee doon loo xam ne lu jara tiit lu la lool loolu maa ngi fàttali bis ay mbokk fii ci tafsir bi benn waay góor gu ñuy nettali fekke ne bi ñuy suul jiili mbay yàlla na ko yàlla yërëm nee nañu dem ba war koo sàng taawam bi jooy jooy yi métti paa yi ko doon defal mu ne leen dey wax dëgg yàlla li may jooy du góor gi ba mu faatoo waaye damaa joxe dix mille ngir yee ñu jënd ci càngaay waa ji delloo sil ma six mille cinq cent kon sama bàyyi li muy nar a yóbbu laaxire mooy trois mille cinq lii ma ma tax di jooy loolee mbokk ndegam jiili mbay moo yóbbu trois mille cinq cent juróom ña mooy quelques mètres de percale yow it bàyyil xel ne loo mën a am ci kaw suuf quelques mètres de percale nga yóbbaale loolu nag aj màkka moo la koy jëkk a jàngal nga dund ko avant ngay dem di wuy ji sa bàmmeel ay yow mbokk jurit xamal ne li nga xame ne nii moom mooy euh, euh, aj googu ihram bañ cay def boo ihramee ba pare li ngay wax mooy labbayk allahuma labbayk loolee lan lay firi li muy firi mooy yàlla wuy si naa la ca maa ngi sax jële wuy si ay wuy si naa la ci aj màkka gi mu bokk ci jaamu yàlla yi gën a jafe ndax da ngay boole dépense xaalis bu bëri yooyu mu jóge Sénégal da nga joxe deux millions et quelque am na ñu joxe lu ëpp loolu ba bàyyi ay cinq millions et quelque am na danga nga bàyyi sa njaboot woon ko gannaaw da nga def ay effort loolu lépp lu métti la waaye nga def ko ngir yàlla loolu yaa ngi xamal sa borom gannaaw li it loo ma woo jëmate danaa ci wuy si soo nee wooral dana woor jullil danaa julli joxel azaka danaa joxe azaka bàyyil sàngara danaa ko bàyyi bàyyil njaaloo danaa ko bàyyi bàyyil fen ak sàcc danaa ko bàyyi labbayk allahuma labbayk yàlla wuy si naa la ca maa ngi sax ci di la wuy si soo demee yaa ngiy wër kaaba ga wër googu ñuy wër mbokk ay symbole la lan la lay jàngal sunu boroom lu mu bind day wër tey jii bokk na lu gën a néew loo xam ne nii yàlla woon nañu ko ci microscope yi bam ñu wonee lan mooy atome biir atome mu won ñu ci lan mooy électron xëy na xale yi ñoom mooy dégg loole yooyu yépp day doon loo xam ne luy wër la naka lay wëri mooy contraire nu montre di wëri mooy jógee càmmooñ jëm la nga xame ne nii moom mooy ndeyjoor loolu la la la loolu mooy la nga xame ne nii noonu la électron yooyu di wëri nga dem ci kaw asamaan da ngay fekk ne suñu suuf bi mi ngi wër jant bi noonu weer bi mi ngi wër suñu suuf bi noonu lii di système solaire bi mi ngi wër la nga xam ne mooy galaxie yi gën a kawe loolu yooyee ña ngay wër yëkk gën a kawe ñu leen di tuddee istar yooyu di wër di wër ba foofu yàlla subhanahu wa am ñoom ñépp ñoo bokk nu ñuy wëree yow mi nga xam ne da nga dem kaaba gi naka noonu noonu ngay wëree kaaba gi mooy mi ngi noonu jóge sa ndeyjoor jëm la nga xamee ni ni moom mooy sa càmmooñ pour wane ne yàlla mi moom asamaan yi moom moom yàlla mi moom la nga xam ne mooy ah, li gën a néew ci spermatozoïdes yi ak électrons yi loolu lépp moom moom loolu loolu mbokk wër kaaba gi loolu lay firi bal bokk na itamit sunu borom utal na malaaka yi la nga xamee ne foofu la ñuy wër ci kaw asamaan na doon ci kaw la ñuy tuddee maqa ah, baytul ma'mur sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nga ko def ci kaw juróom-ñaareelu asamaan malaaka yi dañ koy wër bus bu nekk juróom-ñaar fukki junniy malaaka dañ fa dugg dootuñu fa dugg te bi ilaa yawmi noonu ñu koy wër ci kaw asamaan noonu dañ koy wër ci kaw suuf amma bu dee la nga xamee ni mooy safa ak marwa loolee day jàngal góor ñi ak jigéen ñi ci ne kat war ngeen a mën a wékku ci seen boroom keroog bi Ibrahima jëlee soxnaam sa ak doomam ja Ismail soxna sa Hajar yóbbu leen ca àllu Makka ba benn mbay nekku fa amul benn ndox nekk fa mu daal di ko fay bàyyi Hajar na ko waaw Ibrahima fii nga ñuy bàyyi mu ne ko waaw mu ne ko ndax yàlla la ko sant mu ne ko waaw mu ne ko kon demal yàlla du ñu seetaan yàlla seetaanu ko na am ca la ko yàlla bëttale la nga xamee ne mooy teenu zam-zam gannaaw ba mu dawee jëm Safa daw jëm marwa daw jëm safa def ko juróom-ñaari yoon ngir ndax dana gis kum mën a woo ñaan ko ndox ndax ismaayil mi ngi nekk di yuuxu di bëgg a dee loolu nga xam ne moom la doon daw muy ay kilomètres sunu borom yàlla ko aji ji màkk góor ak jigéen mu ne dundalaatal loolu ngiree nga fàttali ko ne yow julit boo amee sabab ak boo amul sabab lépp na nga wékku ci yàlla julit du doon mukk koy ñekki ak loo mën a am doo sukkandiku ci am am bi ci yàlla ngay wékku waaye loo mën a ñàkk doo sukkandiku ci ñàkk gi ci yàlla ngay wékku lii mbokk la nga xame ne nii moom la ñu li aji màkk bi di jàngal ci la ñuy war a safa ak marwa amma bu dee ne la nga xamee ne nii mooy taxaw ci arafat arafat boobu mooy ñuy jàngal ci ne ki gën a tedd ci ñun mooy ki gën a ragal yàlla mooy ñun ñépp daje nañu sallallahu alayhi doomu aadama yi ñoom fukki seen ñaq ba dem ba fee suuf seen ñaq ba dana dem ba yiit ñenn ñi ba ci seeni oom ñii seen ndigg ñii seeni tuñ lu ko ko yàlla subhanahu wa yal na yàlla subhanahu wa taala ñoo ci mooy taxaw ba taxaw arafat jàkkaarlook suñu boroom muy wane ne diina ji mooy diiney booloo waaye diina ji mooy diiney yaakaar kenn muy yàlla mbokk jullit du yaakaar ku dul yàlla jullit du sukkandiku ku dul yàlla yow ya sëriñ ak yeneen ci yàlla bi ñun ñépp ñoo war a ànd jaamu yàlla bañ ko bokkalee dara doonte ne li ëpp ci nit ñi xamuñu loolu am naa bokk bokk ne la ñuy mujjee mooy buñ jógee arafaat ñi ngi am yaakaar yàlla baal nañu suñuy bakkaar yàlla may nañu àjjana ju kawe ja waaye sunu noon ba du tekki ngembam abadan muy cheytaan lépp loo xam ne am nga ko ci lu baax bala ngaa dee bëgg na taxaw ngir yàqal la ko looloo taxit bokk na symbole yu màgg chiaar yu màgg ci aj mooy sànni ga ñuy sànni jamaraat ñetti fan yoo xam ne da nga koy nekk di ko sanni jamra yooyu pour wane ne cheytaan da nga koo war a xeex xeex boo xam ne ci sa bakkan lay doon nga xam ne lépp lu lay tayalloo ci jaamu yàlla ci seytaane la jóge lépp lu lay woo ci en bokkaale ak sa boroom ak i bàkkaar ci seytaane la jóge loolu mbokk nga lu ci bu baax kon mbokk aj màkk mi ngi nii ña nga xam ne dañuy dem ak ñi demul ñépp seeni xol war a lépp lu ñu fay def ñu cay bàyyi xel xam ne sunu borom yàlla jalla wa ala day ay xéewalam gën naa yaatu mu koy yemale ci trois millions wala quatre millions yooyu daje makka gannaaw ba mu amee un milliard et demi yoo xam ne ñi ngi ci kaw suuf di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñoom ñépp bu def seen yéene sellee ña dem ak ña demul yépp sun borom dana leen boole ca yool ba yal na yàlla defal ñu ko defal ko bépp julit yal na yàlla wërsëgal ñu at gu ñu nangu ak ji avant ñuy faatu ñu yàlla tànn ci ñun ñu nar a aji yal na yàlla may leen yéene bu sell yal na yàlla yombalal leen seen aj yal na yàlla wuutu leen seeni njaboot yal na yàlla subhanahu wa taala ñañ fa nar a dajal mu wërsëgalal ñu nekk fa ci jàmm yàlla bu leen cheytaane yàqalal lenn ci zahiran wa batina allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxasirin subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin